Eh, dem da ngay wër di yalwaat yow dama lay balak yow dama lay balak sa ngeen bu yóbbul ko mafia Abacane du man ak yow gàkku yow yaa ma yab yow yow yow yow wat yow yow juru lamb yow lii boo ko waxee yow ma duma la ma daan la juru lamb amul wax juru lamb amul wax Serigne Abdou Karim Mbacké bu ma yaakaar juru lamb eh. amul wax yow lu may wax yow juru lamb amul wax kii dañuy kebet waa pire euh. ça ñëw jóge gën a ñëw maîtriser leen waaw a ñëw maîtriser ba Guinée juddoo fi laa yaroo mais aw ma maîtriser barki sëñ Abdou Karim Mbacke bu ma yaakaar barki sëñ Abdou Karim laa la ah, yow mënoo ma maîtriser sëñ Abdou Karim eh, Mbacké bu ma yaakaar eh, naa la maîtriser naa la cooki cookiloo ba nga naaw roof la jox la magetu koowee ñu roof la ma la daan la roof la ak galangaare galangaare yooyu dawal ñu roof la luy galangaar moom xam na ko man kay maa xamul galangaar si ñooñu lay waaye fa lay fa lay moo tax mu naan ay galangaay kii magetu koowee yi kii day wër rek STF la day wër rek day taxawaalu amul bëri amul jiitu waa léegi waa léegi waa léegi lu ngeen di wax lu ngeen di wax lu ngeen di wax promoteur bi après ngeen woote. yow yaa am yàlla tuturaal na la am nga. man aw ma jabar am déet laa. yow ah. bëy bu amul déet nga. gala ŋaar yeeg màkk dum kooba yeeg fu ne ngay wër da ngay taxawaalu rek. waaw léegi lu ngeen di wax Assane Ndiaye léegi lu ngeen di wax lu ngeen lu ngeen lu ngeen dig lu ngeen di dig amateur yi pour ah, bi neex na waa presse bi du nuyu waa presse bi xam ma ndax jàpp nañ si man xam ma waaw ñoom samedi kuy neex a faral samedi ak dimanche la ñuy topp xam nga gi nga ma waaye affaire xam ñu si doon jàpp bu baax a baax comprendre nga maa leen di nuyu aw ma seen fay ku si mel ni baabu xar pël bu rafet xam nga Lamine xam nga di nuyu xam nga waa si télé yëpp di nuyu sama papa Malick Thiandoum xam nga moom tamit sonn na si baax di nuyu sama papa Cheikh Ba Messi xam nga du nuyu waa Mirna di nuyu autorité yooyu ñëpp xam nga du nuyu ñoom Bamba Fall Seydou Gueye di nuyu waa Rio ba Malick Sy war na Serigne Touba aw ma seen fay waaw di nuyu xale yëpp di nuyu xale yëpp war na Serigne Fallou Mbacké lu dul samay ami d'enfant ñoom Rahman xam nga ñoom Belende ñoom Koutia président fans club yi ñoom Youssou xam nga nañu waaj kii du tëj kii dañ koy yóndi nii rek ñëw taxaw benn esot yi dama koy daaneel dem xooli ñeneen ñu nekk si kanam socc bi wàllu sereen laa soxla socc Dakar la wala ko jox socc Dakar la non non kii sama mbokk pël Fuuta yi ñoo ma ko jox ak Abacaan kii amul lu may wax ak moom leer na maa ngi dégg yére trois mille lay sol waaw man pimpi laa man ak moom pimpi boos xam nga pimpi boos. déedéet wala laajoo pimpi boos yow. kuy pimpi boos yow pare woo ñu ma yóbbu la si pimpi boos. bu man ak yow non man star non non man du ma ñàkk dara. man na Serigne Fallou du ma ñàkk dara fu ma dem dañ may jox. waaw yow sama papa di Sénégalais di Mouride sama yaay di Sénégalais di Mouride man maa la gën a doon taal bi Serigne Touba. non non non man la non rek leen rek dama lay wax. sëñ bi lépp waaw non waaw waaw loolu moom loolu moom loolu moom indi loolu ay ñun ñëpp ay Sénégalais la ñu ñun ñëpp ay Sénégalais nañ rafet rek na rafet rek gàkku looy tàggoo. waaw di sant yàlla bu baax xam nga di di di di jégaluwaat. ñu ñuy seetaan ñëpp di wax ni xam nga dañuy dañuy wax noonu pour neexal pour yëngal. Mhm. xam nga pour jaay combat bi. waaw mais Bébé la. Mhm. am na tur si làmb. même bu deful dara si làmb ji si si si kii bi nu mu tudd mhm. am na lu mu def si bëre ba nit ñi xam ko quoi. champion la moom looloo tax ma accepté pour bëre ak moom. ok xam ma la wax. am na ñeneen ñoo xam ne buñ ma proposé nañ ma ñeneen ñoo xam ne du ma bëre ñoom. xam nga mais ñi ma war a bëreel xam nañ seen bopp. kii dama koy daan xam nga continuer sama yoon comme noonu. di woo waa Guédiawaye di woo waa Pikine di woo banlieue bi yëpp di woo waa Espagne waa Almeria xam nga waa waa Madrid waa Barcelone sama gars yi maa wow woo yéen ñëpp waa France ñoom Papa maa ngi woo maa ngi woo sama gars yëpp waa maa ngi woo diaspora bi yëpp xam nga di leen wax ni nag maa ngi ñëw maa ngi ñëw foofu laay pare combat bi diaspora bi waaw waaw waaw maa ngi maa ngi ñëw sama gars yi di wax ni ah waaw Fara Ndaw kooku kooku mention spéciale sunu grand la kooku day day day def ay ay ay ay maanaam day déployer ay moyens yu bari da si jàpp daal da ciy jàpp day def maanaam day def loo xam ne sax. kon da ciy jàpp daal baax na koo koy fara kon fara ndaw. kon gars yi baax. neex na ba pare waa ana promoteur bi pare pareegu ma maa ngi woo. waa des na beneen combat wax nga. dëgg moom dëgg maa woo maa ngi woo ñëpp. maa ngi woo maa ngi ñëpp. Omar Baas sama waa ji maa ngi lay woo si combat mhm. di woo Malick Gakou. di woo ñoom Lat Diop waa géej Guédiawaye gi yëpp Ahmed Aïdara mhm. Aliou Sall mhm. di woo waa Pikine mhm. xam nga li ma la wax di woo Modou Gueye Isaaxa Diop Ablaye Timbo di woo ñëpp maa ngi woo ñëpp ñi nga xam dañ si jàpp maa ngi woo ñëpp ñëw jàpp si xam nga Bébé Diène moom affaire am méttiwul xam nga dañ koy diisul daal non diisul kii am na solo moo gën a yomb si combat yëpp kontaan ci yow kii rek jaajëf xam nga xool leneen aca am na solo waa joxante leen loxo kon maa ngi nuyu eh, xam nga waa Tiwaan Pël bu ma dëkk ma maa maa ngi nuyu foo maa ngi foo foo di Tiwaan Pël xanaa Tiwaan Pël yéen ñëpp fa daje non yow noppil noppi la yow yow yaa may noppi la woon booy rakk ndaw yaa ma yaa may noppi la woon yow maam Seera Fall yaa may noppi la woon voilà billahi yaa may noppi la woon da nga wax ma noppi da ngay bàyyi ma wax. mais gën li li muy jëfandu nii. non yaa ngi feemu de. mais Fodé la ngay jëfandu kan mooy Fodé Fodé moom moo kat. xam na ko. xanaa Fodé daa yéen ñaar ñëpp. waaw muy jëfuru de. Fodé itam mbiram jar naa leer lijjanti de. kan mooy Fodé kan mooy Fodé. mais kan mooy Fodé Gakou. maa ngi nuyu xam na Fodé bu baax. ay Fodé sama grand la. Ah, sa gannaaw la jëlal waa léegi waa léegi Fodé bokk leen ko rek te ngeen foto wu jël may naa ko garaawul de ah, ah, am na solo kon foto leen eh, waa léegi waa nuyu waa Tiwaan Pël di nuyu sama yaay di nuyu sama nijaay Ismaïla hmm. di nuyu ñoom Saafaando di nuyu Ama maa koy nuyu bu baax a baax waaw maa koy nuyu ñun ay Pël Fuuta la maa koy nuyu bu baax a baax aja waaw maalaw di nuyu waa Tiwaan Pël yëpp am na solo dina waa Medina nag merci bébé Diène di nuyu sama papa Abdou Salam di nuyu Jili xam nga di nuyu waa Touba bu baax di nuyu waa Ndindi di nuyu Baye Fall yi nekk foofu yëpp nañ ma ñaanal am naa combat man ak Malick Gakou ma jàpp ko daan waaw yow ñu la yónni nag dañoo def jaal yow foo ma la jaal waa léegi ki la yónni daf ma yab daa am ay jaal dañ ko dóor ay ba ñu yóbbu ay béñam ah dégg yow foo ma def la ay béñ. waa léegi wooy ma léegi loxo diisul. yow mënoo dóor yow mënoo maa def mënoo mënoo maa def yow xale bu ndaw moo la jàpp dóor la mënoo ko daan nga xam yow respecté ñu xale bu ndaw bi xale bu ndaw moo la ba sa bopp yi neey mënoo ko daan yaa dégg pël pël moo ko jàpp kooku am xam nga booy Dakar pël la yow suñu da da macha allah moom bu muy daw yow de su ma la nammee reculer reculer un pas un pas un merci waaw léegi photo wu leen nag s'il vous plaît gars yi jël photo koo xam ne day taxaw. waaw jël leen photo waaw jël leen photo waaw jël leen photo léegi s'il vous plaît jël leen photo waaw jël leen photo voilà jël sant ko sant ko waaw may naa la ko wax. kii dama dajeeg moom foofu ma doon lu ndaw. mu ne ma fii góorgóorlul. yaa ngi dégg di doon lu waane sereen ma ne ko amul benn problème. tey xale boobu moo dem ba màgg nii di bëri góor bi. kooku ngay waxaat nii mayaat naa la ko sarax naa la ko. a ah, kooku ngay wax. Eh. Ah, nga góorgóorlu. <laughs> waaw ah, doon lu ndaw. yow ñu daje si kër googu ñu ngi xoolal nga nuyu ma kii du ma bàyyi ma fen ah non non du waxuma Sama Ndour nga. ah Pipi Boss. Sama Ndour Sama Ndour. <laughs> Sama Ndour maa ngi lay fàttali aywa yaa baax. sama sëriñ sama xarit Sama Ndour. maa lay woo si combat bi nee na nee na nee na dana kii ah, tekki na tekki na verre yi de. taxawal nii tekki na verre yi de. taxawal nii mais tekki caméra yi. waaw na. taxawal nag s'il vous plaît jël leen photo loxo rek.